mbokk yi baaxoo di teewlu xibaaru bambuk dal leen ak jàmm ci seen tënkum xibaaru bés bi gannaaw ba nga xamee ne conduite yi nga xam ne daal doon nañ koy amal ci yenn euh, quartier yi euh, ba taw bi ñëw fekk ko fa nag mu daf dal di am affaissement ba indil euh, gàllankoor ñenn si askan bi ab délégation bi nga xam ne moo ngànk projet boobu di projet au assainissement en milieu rural di PAMIR daal di nañ indi ab délégation mu ñëw seet si Euh, Koungheul waaye tamit euh, daal di seet si ki nga xam ne mooy maire bi di Alioune euh, Badara lii ki nga xam ne nag moo jiite chef de projet bi di Balde àndoon ak bureau contrôle Assane Gueye daal di ñëw seet la le maire de Koungheul ngir waxtaan li jëm ci wàllum jafe-jafe yooyu nga xam ne seen projet bi daal dina koy indil askan bi fii ci commune bu Koungheul. ñoom nag maire bi daal na leen dalal ni ki talaata ñeenti fan ci weeru juillet daal di waxtaan ak ñoom ci naka la ñuy def ba daal di saafara loolu waaye daal di leen. defal ay recommandation ngir que ñu fexe ba euh, projet bi li des ci liggéey bi ñu daal di koy ñoŋal euh, ba du mën a indiwaat gàllankoor askan bi ñoom nag euh, muy chef de projet bi di Balde daal ne koy rassurer xamal ku ne ko dinañ redoubler d'effort waaye tamit ñi nga xam ne ñoo ŋànk projet bi dinañ waxtaan ak ñoom ngir que ñu daal di amal liggéey bu mucc ayib. honorable député Fanta Sall nekk responsable politique APR fii ci département bu Koungheul démb. daal doon nay amal ab waxtaan ak ay militants am yu jógee ci juróom-ñeenti communes yu nekk ci département bu Koungheul yëpp. loolu nag mu ngi am gannaaw ba nga xamee ne le président Macky Sall mi nga xam ne ñoom moom lañ àndal daal dinay yëkkati kàddu xam leen ne élection yi di ñëw muy présidentielle 2024 fas yéene wu cee samp ndëndam loolu nag tax na moom mu daal di woowaat militants yi ngir ñu daal di remobiliser wu waaye daal di. wéyal ànd ak ki nga xam ne mooy njiitu réew mi di président Macky Sall loolu nag tax na mu fas yéene sa amal ab tournée euh, départementale ngir dem seeti militant ci base ba daal di waxtaan ak ñoom ngir que daal di wéyal animation politique bi waaye tamit daal di gën a mun a dajale ñi nga xam ne ñoom la àndal ngir waajal euh, candidat bi nga xam ne moom la mouvance présidentielle fas yéene président ci élection yi nga xam ne euh, ci lañ daal di jëm. waaye ñooñu bañ ñëwee tamit euh, terewul daal dinañ indi ay doléance mu jëm ci wàllum euh, xëyu ndaw ñi mu jëm ci wàllum ndox euh, ba ci financement loolu yëpp daal dinañ koy teg ci table ki nga xam ne mooy honorable député Fanta Sall moom tamit mu daal di ci indi ay réponse xam le ne dina ci def kémtu lay kàttanam pour jàppale askanu département bu Koungheul Eh, gannaaw loolu tamit fas daal dina xam le ne moom des ci yi lay des di wéy di ànd te kum ko joxoñ rek eh, moom la fas yéene àndal ci mouvance bi rawatina ci parti boobu di APR. niki démb tamit eh, mardi ñeent fan ci weeru juillet ci lañ tàmbali bac général bi fépp ci réew mi fii ci département bu Koungheul nag préfet bu Koungheul daal doon lay jiite ab délégation ngir daal di saytu centre d'examen yi àndoon seek IEF Mamadou Oumar Gueye ak adjoint au maire ak premier vice-président du conseil départemental ci loolu nag daal dinañ visiter ñetti jury yi muy benn bi di 1879 beneen bi di 1880 beneen bi di 1881 ci loolu nag gis nañ ne lu toll ci 819 candidats ñoo inscrit ci yooyu nag 423 filles la am ak 396 garçons ci ñoo ñu inscrit nag lu toll ci 789 euh, ñoo ñoo composé si 789 yooyu 409 fii lañ ci nemmeeku ak 380 garçon muy 97 pour cent 97 virgule 69 pour cent de taux de euh, candidats yoo xam ne daal nañ dem xëy euh, daal di def examen boobu di euh, bag général rawatina fii ci département bu Koungheul moom nag préfet daal dinay rafet lu baax installation commission yi daal di sàkku si ñoom tamit ñu wéyal liggéey bi ba bag yi dal di am ci jàmm waaye tamit résultat yi daal di wéy di baax fii ci département bu Koungheul coalition Yewwi Askan Wi ni ki démb tamit daal dana amal ab jàkkaarloog taskatu xabaar yi gannaaw ba nga xamee ne euh, président Macky Sall xam le ne dootul bokkut ci élection yi di ñëw loolu nag tax na euh, ñoom ñu daal di xam le ne naam décision bu jël baax na waaye nag dañuy toog di ko seetaan ndax euh, dañuy ragal mu daal di changé waat ci diggante bi ci loolu nag buñ sukkandikoo ci kàddu ki nga xam ne mooy président PRP di Déthié Fall Euh, li tax a jóg euh, Macky Sall ci décision bi bokk na ci tamit isolé opposition bi rawatina Ousmane euh, Sonko te loolu ñoom fas yéene wuñ ko nangu ba tax ñu ngi woo képp koo xam ne militant nga ak sympathisant nga daal di bàyyi xel daal di toog xaar ñu xam nañ ne ci lu ñu jëm bu fekkee ne changé wul mën na indiwaat yeneen jafe-jafe ci biir réew mi. ñu des si euh, décision bi nga xam ne autorité jël nañ ko ngir daal di effacer complètement cité imbécile ci euh, carte sénégalaise loolu tax na nag lu toll ci ay njaboot yu bëri ñu daal di leen génnee ci seen euh, kër ñoom nag ñu obligé daal di di fanaan ci mbedd ndakaaru yi rawatina HLM bi nga xam ne moo dend ak cité boobu nga xam ne jamono ji amatul ndax état bi dafa jël ay matukaay ngir daal di koy raser complètement njaboot googu nga xam ne nag ñoo génnee ci cité boobu ñu ngi ñaawlu bu baax ñàkk assistance bi nga xam ne Euh, état bi daf daal dina koy def waaye tamit la fekk ñu génne leen yóbbuwuñu leen fenn dimbalewuñ leen bàyyi leen ci mbedd mi loolu daal dinañ koy ñaawlu bu baax a baax. ñu di ko tëjee tàggat yaram ak euh, international sénégalais bi di mbay Diagne nga xam ne jamono ji club saoudien moom tamit euh, daal dinañ am soxla ci moom bëgg bëgg koo signal. ndax moom foofu la bëgg a dem waaye gis nañ ne club série bi di Sampdoria nga xam ne Andrea Pirlo moo ko eh, daal di yor moom mu ngi def kémtu lay kàttanam ngir daal di koy recruter mu ñëw ci eh, club boobu di Sampdoria waaye liñ mën a nemmeeku daal mooy eh, ki nga xam ne mooy mbay Diagne bëgg-bëggam nekkul foofu ci série B amaana feneen la bëgg a dem ci beneen championnat